jeudi sur Assalaamy TV xuqal bukaa bismillahi rahmaani wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen leen ziara di jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké al Bachir di ci tofal suñu wëlëre bu baax di suñu sëriñ bu baax di ku tedd Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacké moom sëñ Moustapha Fadil Mbacké ma fas yéene ànd ak yéen nag ci jataay bu ñu ngi amee fii ci Assalaamy FM Assalaamy FM di jataay buy am alxemes ci nekk li commencé 17h yàpp 18h nu fas yéenee def émission bi itam ci wàllu yàlla ak yonent bi waaye mooy yóbbalu ndaw ñi di tasawudu si xaar yóbbalu ndaw ñi nag émission la boo xam ne dafay jàll ci heure boobu kenn ku ne war koo teewlu mu nekkal njëriñ nit ñi di leen jëm ci mbaax ak jub yóbbul ndaw ñi nag day émission boo xam ne dana yóbbu ndaw ñi ci yàlla dana leen yóbbu ci yonent yàlla Muhammad dana leen yóbbu ci xam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaye dana leen yóbbu itam ci moytu place yu texeede yi ni ko sëñ Bamba waxee sa maytuhu tasawud si xaar illaa jinaani lay sil anhaadi téere bii sëñ Bamba mi ngi ko tuddee yóbbalum ndaw ñi ba ci àjjana yàlla may borom yool yi kon émission la bu jar di présenté wu di jar di bàyyi xel bu jar di jàpp di jar di seen mbokk Oustaz Khadim nekk fii ci tuubaa Touba Mbakke Almakhroussa su ko defee nag ngeen bàyyi ci xel bu baax te jéem ci woote jéem cee participer ku mu neexit nga sponsoré jotaay bi kon ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax incha allah